doom moom naq am naa naqar jooyu ma woon ba démb laa jooy démb fu ma teg sama loxo rek day dem fu ma teg sama loxo rek day dem ba tey mënu ma lekk mënu maa ngi joxe lekk di joxe naan waaw man damaa toog rek waaw yaram dafa nooy lépp amiin ne bal daal moo ko faat waaw. xam fan la ko dal. bal bi fii la ko dal waaw tëddee. muy tëjee fa lañ ko doon bal moom fii fii lañ ko doon bal fii am naa naqar jooyu ma woon ba démb laa jooy démb fu ma teg sama loxo rek day dem fu ma teg sama loxo rek day dem ba tey mënu ma lekk mën na maa ngi joxe lekk di toog rek waaw yaram bi dafa nooy nepp ah, bal daal moo ko faat waaw. mën xam fan la ko dal. bal fii la ko am ni la tëddee. dañ koo jaaxaan te ci muy tëjee fa lañ ko fii fii lañ ko doon bal kooku ngi Euh, jërë ngeen jëf mbokk internetu Dakar live ginnaaw bi ñu leen nuyoo bu baax a baax tey nag ñu leen di wax ni rek nakar ak tiis àndal ñëw fii ci ginnaaw raay sud euh, ginnaaw nag ndaw bi nga xamante ni moo fi ñàkkoon bakkanam ci jamono yi manifestation yi nga xamante ni moom la ñu génn mu tuddoon nag Ibrahima ñu toog ak way juróom bu jigéen dañu koy jaal rek nuyu ko bu ko defee moom tam mu wax mbir mi ak fi mu ko toll yaay booy maa ngi lay ziar. waaw kay asalaamaaleykum maa ngi leen leen ziar di di leen baal Euh, yaay booy sa doom ji nga ñàkk ci manifestation yi nga xamante ni moom la ñu génn alors ñu bëggoon a xam euh, kan mooy Ibrahima. Ibrahima mooy sama taaw Ibrahima mooy sama taaw mu ngi judd 2000 ren la am du ñaar fukki at ak ñett waaw Ibrahima mooy nga xam ne sama doom xamul lu dul foo agréé dafa jàngi woon daara bi yàlla defee mu jàng daara ba pare alxuraan mu ñëw ñibbi si nekk fii ak maamam bu mu nekkee ak maamam ba léegi sax tabëg si nag. mu ñëw daaru ci bu nekk fa ak man waaw. bu mu ñëwee ba léegi tamit moo may dundal moo ma joxal sama añ sama reer sama lépp la may defal wax dëgg yàlla mosuma kaa xamee affaire bi ba keroog bu ñu ma woowee rek ñu ne ma boom nañ sa doom loolu nag laa ko yëgee. Ibrahima da doon moo doon liggéey poor poor la nekkoon waaw. doon fa am saleeram doon fa am waaw amul woon embauchement waaye journal lii woon waaw te saa yu demee amul journal yi day ñëw fii ci koñ bi di def affaire maçonnerie waaw loolu daan def. Ibrahima ban genre ban genre xale la woon ba tax mu bokkoon ci ci manifestation yi. Ibrahima dafa bisu juma dafa añ ba pare dafa xëy sangu ba set dem jumaa lu mu julli jee jumaa ba ñëw mu daal di toog ñu teg attaaya naan. bi ñu naanee ba pare mu daal di jóg mu ne day seet ay xaritam mu ñëw fi seet ay xaritam ba pare léegi xale yi dañ koo xamee entraînement xale yi dafa boo gis dafa jàpp xale naa ko mbër mu demoon entraînement bi muy dem entraînement nag ci la ko loolu dalee ci yoon bi. bi la ko loolu dal ci yoon. waaw bi muy dem. muy dem entraînement. bi muy eggul sax bi mu doon entraînement foofu la koy affaire bi dal ci yoon bi. waaw dafa dajeeg manifestant yi waaw. su ma déggee kon moom demul woon ci manifestation mais dafa demoon entraînement da doon dem entraînement ci yoon bi la ko loolu dalee. waaw ci yoon bi ndax ba mu ñëwee summi na jàllaabaam boobu mu ngi doon kaw armoire boo dee seen da kaa summi rek sol sort sol t-shirtam dem entraînement boo ko dalee ci yoon bi. def nañ autopsie ba pare euh, lan lañ leen wax ni moom moo ko faat. ah nee nañ de bal la nee nañ daal bal la waaye bal bi il faut ñu bàyyi ñu koy seet tey nag sama rakk yaa ñu dem hôpital waa dellu nañ am nañu dem. waaw démb na lañ jot koor bi koor bi yàgg na fa trop démb lañ ko jot. Mhm. alors bi ñu defee autopsie ndax wax nañ leen ni bal ci takk der bi la jóge wala peut-être ñeneen ñu nga xamante ni bokkuñ ci takk der yi. bal bi kay waxaguñ ñu dara waxaguñ ñu dara dañu ne daal dañu xaar rek ba léegi ba lii paase ñu topp bal bi jox nañu kayit yeeg yëpp mu ngi fii sama rakk yi après ñu jël bal bi dem tribunal waaw loolu la ñu wax. waaw loolu daal mel ne bal daal moo ko faat mhm. waaw. ndax xam fan la ko dal. bal bi fii la ko dal. kii waaw fii la ko def xam ni la tëddee dañ koo jaaxaanal waaw dafa jaaxaan ci côté ndey waaw la ko daaneel metti na tiis na dokkar na ñu ñaan rek président bi bu dee ñoom la bu dee takk der yi ñoo def lii ñu def seen liggéey bu dul takk deret yi ñu xool ba xool kan moo def jëf ju ñaaw ji ndax tey ñun suñu koñ bi ñetti néew ñetti déew ju fi am hmm? am na ñi nga xam ne tey lañ jot seen koor ñu ngi noonu ñoom it ci kanam la. su ma déggee koñ bi maanaam ñetti néew ngeen fi am ci yoo xamante ne ci manifestation yi la ñàkkee ñi moom dañ doon kii da téyër la dafa liggéey ba waaj da doon tëj fi muy tëjee fa lañ ko doon bal moom it fii hmm? fii lañ ko doon bal kooku ngi fii ñoom ñëpp la xale yi boole ci groupe bi. keneen ki moom kooku moom il faut nga wàcc pont kii bi côté marché bi. moom it moom it moom dañ kaa dóor ba mu dee foofu moom dañ kaa dóor ba mu dee mooy ñooñu di yore moto yi di jaay ambulance yi cag moom dañ kaa dóor ba mu sedd fii ba ba noppi euh, ndax gis nga néewam. waaw gis naa néew indi nañ ñu ko fii indi nañu suñu néew daggati nañ yaram bi yëpp ni ma gisee moom démb sama doom moom naq am naa naqar jooyu ma woon ba démb laa jooy démb fu ma teg sama loxo rek day dem fu ma teg sama loxo rek day dem ba tey mënu ma lekk mu ne gisoo maa ngi joxe lekk di joxe naan. waaye man damaa toog rek. waaw yaram bi dafa nooy nepp. amiin yaram bi day nooy nepp xaw ma lu mu demee nii xam naa moom organ yu baax yi moom gisatuma bopp daal laa gën a gis si lu mu am ci yaram bopp daal rek laa gis hmm, metti na trop metti na war nañ ñoo jàppale nag ndax tey ginnaaw yàlla amuñu lu suñu njaboot dégg nga tey ñi def lii tooñ nañ ndax ki nga xam ne demul ci manifestation moom mu ngi ci yëfam di dem ci yëfam bañ def ko nii metti na metti na tey yow tey dañ naan boo amul taaw juraat ana taaw fu ñu juraatee taaw taaw dinañ ko juraat doo ko juraat léegi day des rek fi mu ne sa kurus di ko ñaanal nit ñi lekk di naan waaye yaa ngi am sa naqar ëmb sa naqar. mais yaay booy bi ñu ko defee autopsie ba noppi ak opération yi nga xamante ni moom moo jot a am euh, moment boobu lan nga yëg. eh li ma yëg kay rey na moom li ma yëg rëy na daa mel ni bis bu ma sukkee di mott sama doom bi. ku toog 25 ans doo am doom xam nga kooku kon yëg nga lu naqari yëg naa lu metti lool démb démb laa yëg lu metti. sëy nga dem na mu nekk xale ma koy nàmpal tey ma doon xalaat tey mu takk jabar amay doom ma yore samay sët tey du ma gis jabar du ma am sët ah tami tamit jigéen di ñëw fii démb ku ne di daanu xale yëpp di daanu waa tey dëj bi du ñu ñoo koy def de ñun tukkiroo xamuñu dëj ñu dangay ngay dee ñu suul la tey saraxee la tey ñun loolu la ñu xam lii xale góoru ginnaaw raay ñoo ko def xale yi nga xam ne ñoom la doon ànd jeunes yi ñun suñu koñ bi xale yi duñu bandi xale yi xamuñu bandi xale yi duñu dem ci manifestation xale yu gëm seen boppoo fi xale bu fa juddu ginnaaw raay dangaa gëm seen bopp seen jigéen ñi gëm nañ seen bopp seen mag ñi gëm nañ seen bopp ñoom xale ñu juddu gëm seen bopp ñoom ñëpp gëm seen bopp gis nga kii ni militant la fii ci mairie bi mooy maam Sané la tudd dégg ñoom ñëpp fii lañ ne xale yu gëm seen bopp bëgg li ñu doon waaw ñoom affaire politique yittali ñoom yoonu sëriñ Touba bi rek moo leen yitteel ñoo ngi si gis nga ne foo leen fi démb nii la ñu fii tey it ba ñu demee ñu ne suba nii la ba guddi waaw ñu ngi ñaan nag léegi comme que lii yëpp am na ci ne président xool rek dig nañu xool seen digganteeg yàlla bu dee ñoom la ñu xam bu dul ñoom it ñu xam loolu rek a ci des waaw ndax rey sa doom rey ah ñu rey suñu taaw yi fu ñu amee ci taaw ah xale yi ne di jàng ñii di def bac ñii di def xam am benn cinq ans ne amatoo doom di la mën dara ah ban doom ñu xam ne topp si moom léegi yëpp ay xale lañu ay xale rek a topp si moom ay xale gën ci toogoon xale la kii rakkam xam nga ki topp si moom xale la kon nañu dimbale rek. nga xale yi bëgg rek te jiite réew mi jéem ñoo dimbali ci la xale yi bëgg mu def ko ndax ñu dimbali ñu fii bañ fi toogee ba tey gisuñ fi kenn nag du kenn ku ñu fi gis ku ñëw ci ci seen tur. kon su ma déggee moo xam ci pouvoir bi wala opposition bi amul kenn ku fi teg tànkam ngir jaala leen ci li leen. waaw xanaa tey moom tey moom gis nañ leen tey moom ñëw nañ fi ñoom ñëpp ñëw nañ fi. ah ñoom opposition bi rek xaw ma leen ndax man damaa ñëw ñu ne ñii ñii ñii ak waa maire bi. waa Pastef wala. Ah, waaw ñii man da xaw ma sax ñu fi ñëwoon tey ñoo nañu fi daa ñaari group waaw gis naa leen fi waaw. ndax amoo leen jafe-jafe euh, balaa ngeen di denc seen doom amoo leen woon jafe-jafe pour jot ci koor. amoon nañu jafe-jafe waaye benn docteur bu baax bu dëkk fii bu tudd Diop ak benn xale bu góor bu nekk Pamekaas. ginnaaw yàlla ak yonent bi moo ñu jàppale ba ñu jot suñu koor. alors ngeen bëggee jot seen koor euh, ñaata fan lañ leen jaabanteloo. ah jaabante nañu 7 jours 7 jour pareegul kayit yi defar leen kayit bi dem leen tribunal bu ñu defaree ñu subaa ñu demee dem leen kayit bi am na problème dem leen ci procureur yooyu da la ñu doon wax. ne ba tey ba tey jii moom démb moom ñu jot ko bañ ñu koy jox ñoom dañoo bàyyi ba pare ci rek jox ñu ko. def nañ ci luñ ne caxat caxatee nañ xale yi pare jox ñu boo gisee nee ñu dagg yooyu dagg dañu dun gëmuñu ne bal la moom nag bal dëgg ko rey bal balla ko rey ci boppam bal moo ko rey xaw ma ne ku dóor bal yàlla rek a xam nee na ku dóor bal yàlla nañ ñu ko yàlla feeñalal suñu ko yàlla na lu feeñalal yàlla nañu ko daje ji ñoom yow ma ñu fayantoo ko foofu buñ leen mënta gis àdduna aju ndax yaay nga euh, te gis nañu ne euh, àdduna bi li ci des bari na lool du ñàkk tamit peut-être yeneen ak yeneen euh, dina fi amaat lu nga xamante ni dina tax ndaw ñi di jàmbaaloo ñuy ñaan ñu bañ cee egg tey boo amoon message boo xam ne moom ngay lancé yaay yi ci seen doom yi waaye tamit gouvernement bi lan lay doon. damay lancé gouvernement bi ne leen Sénégal dëkk ñëpp la ñëpp a ko bokk te ñun bi ñu juddoo ba léegi jamonoy Abdou Diouf ba jamonoy Senghor ba jamonoy Laay lépp fekk nañu waaye lu mel ni suñu koo gis ñun jàmm la ñu xam Sénégal jàmm la xam ñun foo la ñu xam ñun ree la ñu xam buñ demee nag tey ba lii ñëpp a tiit yaa yëpp a tiit yaa yëpp a jaaxle ndax tey ku ne sa fit du toog ndax ku yeewu rek gisoo sa doom rek tiit nga man gis ba ma nekkee fee sama doom bi nekkoon si ba ma bala moo ñëw sama xel kooku laa doon xalaatal dee waaye du kii xam nga étudiant yi moom ku ne nga lay xalaat kooku nga cité ndar la ne kooku nag laa doon xalaatal dee waaye du kii mu ne ma yaay tëj nañu ma ko fay nañu mu ne ma fayeeguñu ma gaantu yónnee ko junni mu daal dina ma suba sa ëllëg sa mu ñëw xam nga kon xam nga kon kon kon nag nañu jàppale nit ñi nit ñi tiit nañu nit ñi bu ñu lekkee seen xel du dal suñu dem seen xel du dal suñu toogee si kër yi seen xel du dal ndey yi daal tiit nañu te ndey yi rek naka tiit keneen tiitu ko du ndey yi kon ñu ngi ñaan rek yàlla nañu yàlla dimbali président de la dimbali ñu lii jóge si suñu réew mi ndax ñun xamuñu lii ñun jàmm rek la ñu xam ñun loolu la ñuy ñaan nañu defal jàmm jàmm la ñu bëgg yàlla nañu yàlla defal jàmm waaw sama xarit Diop Moussa Moussa jërëjëf waay